loolu dong la ma fi bindee yéen ci daal di Muaas kooku jëfam ji noonu lañ koy boolee xëppaat ko ni ko moo am na am na koo xam te ni léeg-léeg bind tuyaaba ak bàkkaar yi indi be jëfu aji njëf aji nit ba mu paase asamaan bu jëkk bi parce que jëw amu ci nee ba mu ñëw di ñëw ba ci asamaanu ñaareel bi mu am benn malaaka bu taxaw ni du ngeen jàll ñu ne ko ah kii jaamu yàlla yi kooram yeeg naafile yi aj màkk xanaa gisoo tuyaaba ji ni bare mu ne waaw man xooluma tuyaaba ji man yàlla ba ma fi lem ma fi tege mooy nee na koo xam ne poyteefu àddina poyteefu àddina mooy ma ci moom la bëgg mooy bëgg moom la bëgg ci xolam nee na bu ma bàyyi ku mel noonu jëfam di ko di jàll man loolu dong mooy moom moomu ci amal maanaam kii du ma bàyyi jëfam di jàll parce que lam def ca lu baax ak lépp xooluma ko kii daal jëfam du jàll du ma jàll du ma romb fii parce que positif àddina képp moom moo nekkul ay itte mi ngi doon jàmm waaye dafa xéeroon ci àddina nu ñuy def nag ah ngeen delloo ko fii daal moom du fi jàll yonent bi sallallahu kooku noonu lañu ko delluwaat ci am mu ni ko am na koo xam nag jëfam dafa ñëw passé asamaan bu njëkk bi parce que jëw amu ci passé asamaanu ñaareel parce que positif àddina amu ci nee mu ñëw ba ci asamaanu ñetteel bi mu am benn malaaka bu taxaw ñu ko ni leen fii du ngeen jàll ñu ne ko yow xanaa kii xooloo jaamu yàlla yi xanaa gisoo koor yi gisoo naafile yi xanaa gisoo kii ni leeram gi yëpp mu ne waaw man yàlla daf ma ne woon koo xam ne si ak rëy moo nekk ci xolom bu ma bàyyi jëfam di jàll ci kii ak li ma doon li mu doon def yëpp rëy moo nekk ci xol ci xam nga xam ne rëy mooy ndey ñaawteef yépp bare na ñoo xam ne si ñi ngi nekk di jaamu yàlla iblis day ñëw ba ci yàgg daal day toog ba ci yàgg ñi nga xam si kum kum mënal yow kum kum la mënal ba doo jaamu yàlla dana fexe ba doo jaamu yàlla waaye bu fekkente ni mënu ci dara nag bu fekkente ni mënu ci fokk nga jaamu yàlla dana am beneen pexe bu mu def mooy day fexe boo xam wan la ni yow ku foor nga yow ku rëy nga dégg nga bu ko defee loolu boo ko yëgee rek wali yu baree bare bare ci loolu lañu ci loolu la ñu daanoo waaw Sëñ Tuubaa wax na ni wa yaddai wa ba baadul wusula taarika ibadatin xata yasira halika am na ñoo xam ne dañuy woote àgg ci yàlla woote àgg ci yàlla googu nag àgg nañ ci yàlla sax waaye woote nañ ko woote goo xam ba mu yóbbu ba mu indi leen ak rëy rëy googu dem ba mujj ñu mujj leen a wàccee ñu mujj alk alk nekkatuñ dara waaw malaaka yi ni waaw kon nu ñuy def jëf mu ne ngeen delloo ko man xooluma jëf ji jëf ji ca ca jëf ji ba ñu koy compter dara dañ day àgg ci yàlla ba pare maanaam yow liggéey nga sa liggéey ba pare fokk war naa romb juróom-ñaari asamaan yépp ba àgg ñu soog a xool jëf ji nan la mais malaaka bi nee na du dem malaaka asamaanu ñetteel bi nu ñuy def nag ngeen delloo ko yéen salaa salaam ni Muaz ñu dem ba mujj am benn waay boo xam ni jëfam passé passé na asamaan bu njëkk bi parce que amul benn benn yoon fu mu jëwee passé na asamaanu ñaareel parce que amul benn poyte fu àddina bu mu bëgg waaye ba mu ñëwee ba ci ñetteel bi moom itam passé na ko waaye ba mu ci asamaanu ñeenteel bi mu fekk mu fekk benn malaaka bu foo taxaw ni bi du ngeen jàll ñu ni ko ah kii nga xam si jaamu yàlla yi mu def tuyaaba yu bari yi xanaa gisoo leer gi ni muy jolle xanaa gisoo yi mun leen d'accord yooyu yëpp am na ci waaye man yàlla ba may bind leen dong benn service képp la ma sant loolu dong dong mooy sama jaamu mooy sama lépp nee na bu ma bàyyi koo xam ne day naw jëfam kuy naw koo xam ne dafa jaamu yàlla ba naw la mu jaamu yàlla duma bàyyi jëfam di jàll xam nga yàlla mu amul benn jaamu yàlla benn jaamu boo mën a def benn jàmm boo xam ne si mën nga koo def rek ba sàppaanoo ko yàlla munta nekk parce que parce que bu bu wàññeenteeg yow ay weex-weex dañuy wax ni nit koo gis am na jullit laa wax am na téere bu ñu bind lu baax ak téere bu ñuy bind lu bon kenn ku ne am na lool kenn am nga téere bu ñuy bind baax ak téere boo xam ne lu bon lañ cay bind waaye nag am na beneen téere boo xam ne nag yàlla lim lim la defal lépp lim ba nga amagul ba bi nga génnee àddina lépp def na ko ci ab téere ma nga mu denc téere boobu nag du génn du ko génnee xam nga kañ la téere bi génne bu fekkee ne na sa jaamu gi nga koy jaamu da nga koo naw ba ni yow def nga lu lu réeréeréy day génnee téere boobu ni may itam kon nag gannaaw am na loo ma defal may am na lu ma la defal kon nañ seet li ma defal ak li ma la defal bu ci ëpp moo tax Umaru Xataab naan man xuusiba uqiba ku yàlla waññeenteeg yow weex weex rek mbugal la malaakam ne man duma bàyyi kii jëfam di jàll parce que li muy jëf rafet na lool yéeme na lool waaye waaye nag moom ci boppam daf ko yéem ba gis gi ko gis nag yàlla nee na ma bu ma bàyyi jëfu koo xam ne day ñëw jëfam day naw jëfam muy jaar fii waaw mu ne ñu ni ko waaw nuñ koy def nag mu ne ah ngeen delloo ko ko du ma bàyyi jëfu aj jëf man loolu dem la xooluma jëf ji xaw ma sax ni def na xaw ma def na xaw ma deful waaye comme jaamu gi mu doon jaamu naw na jëfam rek mandarga boobu gis naa ko ci yow gis naa ko ci moom kii doo bàyyi jëfam mu jàll yonent bi ni Muaas kooku nan lañu te xoolal lim def lépp lim def lépp mokk deful mu am na koo xam ne nag na asamaan bu njëkk bi parce que malaaka mi ngi vérifié jëw gisul dara romb na asamaanu ñaareel malaaka mi mi miy vérifié poyté fu àddina gisu ci dara romb na asamaanu ñetteel parce que malaaka mi nga xam mooy vérifié rëy gisu ci dara romb na asamaanu ñeenteel parce que malaaka mi vérifié naw jëf dara amu ci waaye bi mu ñëwee ba asamaanu juróomeel mu ni Muaz bi mu ñëwee ba asamaanu juróomeel dafa am benn malaaka bu fees as bunt bi ñu ne du ngeen jàll ñu ne ah kii nga xam ne si jëfam ji kooram yi naafile yi mu daan naafile jàng alxuraan mu waaw yooyu yëpp am na ci waaye man yàlla lim ma fi bindee nga xam ne loolu képp mooy sama jaamu loolu la ma bindee mooy koo xam si keñaan mu ngi ci xolam nee na bu ma bàyyi jëfam di jàll kii ak jëfam ju bari jigéen di yéem yëpp lim doon di fépp keñaan mi ngi woon ci xolam yéenewuloon kenn lim yéene boppam lu nit am rek yi eñaane na ko moo xam moom loolu am na ko wala am ko lu nit am ci lu baax rek iñaane eh, na ko yàlla nee na nag bu ma bàyyi jëfu ku mel nii muy jàll ñu ne ko ah waa nu ñuy def ju mu ne ah ngeen delloo ko man ngaa fii du fi jàll te bunt yooyu boo ci jàll doo dem man kooku dama ko bàyyi muy dem mu ne ñu ne kon dañuy nang dañuy delluwaat jëfam yonent sallallahu alayhi wasallam kooku noonu lañ ko delloo delluwaat jëfam <coughs> mu ne Muaz <coughs> am na koo xam ne nag jëfam romb na romb na asamaan bu njëkk ndax amul jëw romb na asamaanu ñaareel ndax amul woon amul du nekkul woon ko bëgg poyte fu àddina romb na asamaanu ñetteel bi ndax niwul woon nekkul romb na asamaanu ñeenteel bi ndax nekkul woon koo xam ne ko iñaan la no kuy naw jëfam romb na asamaanu juróomeel ndax néew nekkuloon koo xam si ku iñaani doomu aadama yi la waaye ba mu ba ci asamaanu juróom benneel dafa am benn malaaka bu taxaw fees asamaan leen ni ko ni ñooña ñi xafasa yi mooy ñi loon bind tuyaaba yi di di ànd ak moom di ñëw mu ni leen malaaka mu leen du ngeen jàll fii du ngeen fu ñu ah kii yi tuyaaba yam yàlla yi mu def fi naafile yeeg jàng alquran yëpp léegi nan la def mu ne waaye mais man yàlla li ma fi bindee nee koo xam si am woon ci doomu aadama yi bu ma bàyyi mukk jëfam di jàll kii ak jaamu yàllam yi bari yëpp amul woon du tooñ nag niw ñi muy doon tooñ mii amul woon yërmande ci doomu aadama yi comme xolam yërmande ci yërmande ci doomu aadama yi nekku ci kooku nee na man bu ma bàyyi jëfam muy jàll seet leen neen nu ngeen ko def ah waa léegi nan lañuy def nag mu ne ah ngeen seet nu ngeen def kii moom yàlla nee na bu ma bàyyi jëfam muy jàll bu ma bàyyi jëfam muy jàll yonent bi sallallahu alayhi kooku noonu lañ ko delloowaate jëfam noonu lañ ko delloowaate mu ñàkk lépp mel na mu sa def dara mu ne ko Muaz am na koo xam ni nag jéggi na asamaan bu njëkk bi jéggi na asamaanu ñaareel romb nañ asamaanu ñetteel asamaanu ñeent juróom ba romb asamaanu juróom benneel ba ñëwee ba ci asamaan bu mujj bi ba ñëwee ba ci asamaan bu mujj bi am benn malaaka bu taxaw ni ñu ne ko ni fu ngeen jëm ñu ne ko ah kii kii jëfal ne mun de kii du du ma bàyyi mu jàll ah loolu tax nag mu ne kii mënu ma bàyyi mu jàll parce que man yàlla li ma fi tege ñu képp koo xam ne si dafa bëggoon dégtaru dafa bëggoon dégtu koo xam ne daa bëggoon fu mu toll ñu di ko tudd naan diw fi am ëpp xam-xam diwa baax rajo yi di ko way nit ñi di ko di ko jooy bi koo xam ne loolu la bëggoon bu ma bàyyi jëfam muy jàll kon man yàlla loolu la ma fi tege nee bu ma bàyyi kenn koo xam ne si dafa bëgg maanaam daa bëggul ñu di ko dégg bëgg bëgg bëgg siiw nga xam ne kooku ku mel noonu bu ma bàyyi jëfam jàll ñu ne ko waaw nan la def jaamu yàlla yi mu koor yeeg mu ne ah kon ngeen delluwaat ko ko daal moom xaw ma fan lay jaar waaye fii du fi jaar te boo jaarul ci asamaan boobee foofu bunt boobu boo fa jaareel doo mën a jàll ah waa léegi léegi kon nu ñuy def kon nu ñuy def ñu ko ngeen delloo ko jëfam ngeen delloo ko yéen salaasam daan ni daan ni Muaz kooku noonu lañu ko delloowaatee jëfam mu dellu Muaz ci gën a tiit mu ni koy mu yéen salaasam ni ko Muaz am na koo xam ni nag jéggi na asamaan bu jëkk bi jéggi bu ñaareel bi gii jéggi asamaan ñetteel bi ba ca juróom-ñaareelu asamaan ba mu ñëwee juróom-ñaareelu asamaan daf ko jéggi ba mu dikkee lu mat lu mat lu mat maanaam euh, malaaka yi nekkoon ci asamaanu juróom juróom-ñaar yi yëpp dañoo àndandoo ak lu mat ak ñetti lu mat ñetti junni ci ay malaaka yëpp dañoo àndandoo di gunge jëf jooje ndax rafet ba ak taar ba waaye nag li ci problème bi mooy bu bu ko ñuy ngi ba mu àgg ca kanam ba kanamu borom nag ba ca kanamu yàlla ndekete kooku daanaka mu ngi waaye émission bi euh, waxtu wi dab nañu xam naa bu ñuy dellusiwaat incha allah danañ leen leeralal pour gën leen xamal ni maanaam eh, sunu borom tabaaraka wa taala du jaagee ni laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin birru man ittaqa wala walakin birru man amana billahi wal yawmil axir maanaam ko koo xam ne si du jaagee ni du jaagee ni eh, maanaam mbaax danga naan naa jublu penku di julli jullee ko julli moom mooy cosaanu lépp mooy cosaan li mais nag waxuñu nga daal di fondement ak kër ba fondement bi dëgër rek nga daal di fay bàyyi kooku su moo tax suñu moom tabaaraka wa taala euh, wax ni bu fekkente ni da julli am na bu julli gi baaxee am na foo xam ne si am na loo xam ne mu nit mënu ko def ba tax na kon kise bi fokk ñu àggale leen ko bu ñëw ci beneen émission ndax lu am maanaa loo xam ne si Muaaz ibn Jabal jooy ci bay bëggati ak fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jéeg moom ko defee kon ñu ànd ak yéen yéen seen ci émission bi ñuy def subaat incha allah ñaan yàlla may ñu dégg ak topp seen mbokk Mouhamadou Amine Sall moo leen ko doon defal fii ci TFM wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.